waral sunu jataay bi li waral ñu woote dañuy avertir askanu Sénégal pour xamal leen ni dañu jëm ci grève le vingt cinq décembre pourquoi parce que ñun ay acteurs du transport lañu grève bi ñu jëm nag ça ne pas dire que dañuy impacter économie réew mi dina ko nuru parce que ñun ci transport la ñuy yëngatu de manière générale li tax ñuy dem grève nag tracasserie la tracasserie routière parce que tracasserie routière defe naa Sénégalais yëpp ñi nekk ci biir kër yi ñi nekk ci biir oto yi di dem ak ñëw gis nañ ni takk der yu nekk ci réew mi ni ñu mon ni ñu taxawee ci réew mi di addu kalpe li nga xamante ni nii addu kalpe lañ ko mën a tuddee mooy jël alal joo xamante ni teguwul ci yoon Sénégal gépp xam ko mu nekk loo xamante ni ñu bëri xam nañ ko ci réew mi mu nekk nag ci suñu secteur ñun muy secteur transport ñu dem ba xam ni mënatuñu dem ñu ne kon il fallait que ñu def intersyndical woo ci bépp secretaire général syndicat bépp central syndicat ak bépp sénégalais pour wax réew mi ni leen le vingt cinq décembre képp ku yor oto di daw ñu ngi lay lancer appel pour nga banque sa loxo ñu taxaw ba réew mépp xam ni dafa am lu tax ñu taxaw li tax ñu taxaw nag bokk na ci Afrique pesage bi nga xamante ne nii mu ngi fii ci réew mi nga xamante ni tey boo yoree sa oto ñu ne la trent cinq tonnes nga war a chargé nga ñëw chargé trent cinq tonnes ni la effectivement c'est exact à l'époque daaw ñu fay dara boo boo ëppalee boo ëppalul dégg biñ ñu waxee ni boo ëppalee dangay ngay fay ñun dem nañu ba organiser wu ba nga xam ne dootuñu ëppal ñu gis ni oh, ñàkk ëppal boobu arrangé wu leen ñu ne kon léegi ku ëppal ak ku ëppalul di nga fay 2000 francs yéen ñi nekk ci Sénégal xam ngeen li fiy tourné ci ay camion muy saabu bi oto yi génn kenn ku nekk deux mille francs soo ëppalee léegi sax même oto bu chargé ngooñ 20 sagu ngooñ sax boo ko chargé dinañ la yéegal ci kaw pont bi pour ñu mën a récupérer c' est 2000 francs nga chargé 35 tonnes ñëw ñun la c' exa exact suba nga chargé 34 tonnes ñun la ëppal nga 2 tonnes maanaam pont bi dafa fiabulul ñu yàgg ci nag di ci dund vraiment di ci dund dundin boo xamante ne nii metti na tracasserie routière bi nga xamante ni nii ñun moom la ñuy wax boo demee tey ci CEDEAO règle bi nga xamante ne nii moom la CEDEAO wax pour montage yi war a am ñetti post la parce que ñun ay ay chauffeur international lañu dañuy génn di dem ci yeneen réew yi ñett yooyu ñu fi waxoon dañuy waxoon boo génnee ndakaaru Kaolack ak frontière muy ñett ndakaaru Kaolack frontière compter leen tey ñu ñuy génn fii ba frontière di nga compter plus de cinquante montages ci kaw tali bi bi gën a garaaw mooy chauffeur bi day ñëw taxaw nga contrôler ko am mu amee infraction infraction bi mu amee nga ne ko daggal ma reçu parce que damay dem international yow ma Sénégal bu dee Sénégal mën nga ma attesté te attestation bala nga koo imposer nit ki nit ki mooy dem ba mën ni mënumaa fay aw ma lu ma fayee ñu jog laa jox attestation pour boo amee loo fayee nga ñëw fay mais ku yor xaalisam taxaw war a fay laaj na reçu amendement forfaitaire bi nga xamante ni Sénégal gépp ko moom nga wax ni amendement forfaitaire boobu yoruma reçu bi dama lay attesté su ma la attesté nga jóge fi nga fi nga fi nga nekk dem ba ca brigade ba nga nga nga doog a daggaru si ñëwaat te dañuy taxaw foo xam te ne un kilomètre la wala si sorti dëkk ba la ñuy taxaw loolu yëpp sa xeetu tracasserie la on n'a pas tout di man rek parce que sama ay collègues ñu ngi fi beneen bi ci des mooy la sabo ci réew mi foo mën a taxaw ñu sabo la te utaluñ ñu parking am na su suñuy naataango yoo xam ne extérieur la ñu nekk ñoom bi ñu ñëwee utal leen leen fu ñu nekk mais ñun Sénégal dafa mel ni dañu bañ seen seen doomi réew je ne sais pas organiser wul di lancer un appel le président de la république nekku fi pour yàq dafa am ñu fi teg mais di ko wax askanu Sénégal sonn nañu fas nañ yéene taxaw le vingt cinq décembre incha allah loolu moo waral sunu woote bi ak sunu jotaay bi salaamaaleykum wa